ça va soxna si ça va. tur bi nan la Ndeyloo Ndeyloo Ndeyloo ñu ñëw tey fekk la fii ci plage bi nga xam te ne mooy Malibu ma bëggoon a xam lan moo fi waral teewaay bi. Euh, <laughs> eh taxaw taxaw taxaw dañ fay ñëwoon pour soulager kii nii def li ñu neex li ñu saf yooyu noonu ñu xam ah da ngeen fay ñëwoon pour soulager oui. yow Ndeyloo nga gis temps yi nii ne xale yu bari ñu ngi lab si géej gi di dee lan ngay dénk seen parents yi ak lan ngay wax xale yooyu. suma benn mag ndeysaan fii la gaañoo dina ma xaw tuuse tuuti mais yàlla baax na fii la laboon ndeysaan ci géej gi géeju Malibu bii nii mais mais yàlla baax na fii la labee woon d'accord merci dégg ok je vois. salaamaaleykum jarul sax may nuyoo nuyoo bi jarul muy bari yéen Sénégal yi man ni ma mel yéen sax ngeen balaa ngeen may folli sax ngeen xaar ma am sax une semaine amaguma une semaine ngeen tegal ma fenn dagg ndax lan nga par. vraiment vraiment nga par. Mhm. soo say weer weer bi localité ak avance nga faaru ngay looloo tax looloo tax ngeen folli ma man mii mën la day loo man loolu du ma met après ngeen ne ngeen koy jox ay 1 million xaw bu la neexoon takk say verre nga def ko mais defoo ko loolu yëpp parce que amul amul problème loolu yëpp amul problème man jar naa lu ëpp 5 millions dama damaa nekk doomu réew te damaa rabot mënoon nañ laa may un mois sax nga safoore sa bëri tuuti amul problème en plus ngeen ne ngeen koy jox ay kii ne ma civilisation bi ma ci def ci dëkk bi dëkk bi ñëpp di ma ràññee ku xool ne xam ni oh. Oh, mais xoolal à suivre laa koy def ndax Ndeye Lo mi waajal leen te xëcca ah, damay waaj invité invité yu am jom vraiment te xoolal nag ma ci nekk sax di debaa munoo fayee noonu day yomb fay day yomb day man xale buzz mhm. xale intratalment mais nga paru nga par ngeen may jëndee doo too ko